10h33 mooy euh, euh, doog jot on va parler maintenant sécurité Fama Thioune ak caméra de surveillance yi xaw ma lu ci yoonam mais bon euh, neena gis na ci yu baax yoo xamante ni mën ngeen ko wut seen ay biir kër bu ngeen bëggee gën a renforcer sécurité kër yi parce que d'habitude tout ce qui est caméra de surveillance d'habitude dañ ko doon gis ci ay boutiques wala ci ay société ak grande surface yi ci entreprise yi mais maintenant nit yi xewal nañu di ko ënd ci seen i biir kër oui léegi dañ ko boole euh, ci construction bi sooy euh, commencé tabax ci ngay def sa installation pour que tu puisses intégrer intégrer li nga xamante ni looy xool mënu fi pour nga mën a intégrer li nga xamante ni moom mooy caméra de surveillance yi waaye dañ ko gën a euh, utiliser temps yi parce que cas de vol yi dafa gën a yokk dañ ko gën a yokk bu baax a baax donc euh, su fekkee ni mën nañ ci mën nañ gis expert bi nga xamante ni moom lañ ci waxtaanal mu wax ñu yan forme moo am ak njariñ bi nga xamante ni caméra de surveillance yi am nañ ko ci biir kër yi ci grande surface yi ci boutique yeeg yëpp nañ ko déglu il s'appelle Farasila caméra de surveillance nag am na ñaari façon am na caméra IP comme ana caméra analogique yi caméra analogique yi bon léegi jamono dem na boo xam ne léegi dafa gën a avancé ñu koy wax caméra numérique en même temps ak euh, caméra euh, analogique yi moom la ñuy utiliser ci kër yi moom la ñuy gën di faral di utiliser si kër yi parce que moom moo gën a moins chair ba pare utilisation moo gën a yomb euh, léegi ci caméra IP yi c'est beaucoup plus professionnel coût bi moo gën a cher maanaam. ñoom may wax ne man dañuy jëlaale caméra jëlaale sax sàcc ba sàccaale caméra yi bon loolu yëpp mën nañu wax ne. xam nañ am nañ ay parade quoi nit yi xam nañ xam nañ nan lañ mais am na wala mu filmer ko ba loolu yëpp ci installation bi la loolu yëpp euh, mën nañ mën nañ ko moytu ndax nit ki su ñëwee bay dugg ci biir kër gi euh, xam nañ euh, lan la mën a ñëw def ci caméra yi mais caméra yi am nañ de telle sorte que mën nañ photo seen kanam ba yónnee ko yónnee ko message wala yónnee ko mail ñu ñu borom boromam am am kanam waaju ñëwoon dugg si biir kër gi sàcc mais tamit am na caméra yoo xam ne tamit dafa amaale alarme euh, yooyu nag moom la ñuy gën di faral di def sax parce que boo nit ku su nekkul këram su buggee jénn dem liggéey ji te xelam dal si ginnaawam moom yëpp wut caméra yu mel noonu yoo xam ne day ànd ak alarme nit ki su duggee sa kër moom dina alarme dina yuuxu ba pare dina la yónnee borom kër gi message ne am na ko dugg sa biir kër. de ce fait que léegi nag nit ki dina mën a xam ne doo di nga mën dem liggéey sans problème sa xel dina dal di xam ne kenn du ñëw jaar sa ginnaaw. voilà Farasi laa leen doon euh, déglu moom xam-xamam màcc na ci wàllu sécurité donc joxe na modèle yi ak euh, genre yi nga xamante ni mën nañ ko def ci ay biir kër. Mm-hmm. Euh, voilà c'est pratique ku nekk mën nga ko am sa kër. ci mu ngi wax ne que. application bi ci sa smartphone ku dugg sa kër di nga mën a xam fi mu dugg kan moo fa jaar kan moo fa nekk alerte bi aussitôt dina sonné ci sa téléphone comme ça nga gën a mën a fagaru mais aussi yaa yeneen forme yoo xamante ne ay méthode de sécurité la yu mën a adapté comme ay alarme yoo xamante ne bu nit ki duggee automatiquement dina sone riir ci kër riir ci mbedd mi riir ci koñ bi de telle sorte que nañ la mën a teel a wàllu si am na aussi yoo xamante ni bu nit ki duggee rek dafa am gaz buy échappé wu da koy gëlëm ba fa lañ koy fekkaat jël ah, lépp léegi dañ koy programmer ci kër bi quoi booy tabax da nga koy programmer non non non loolu da nga koy installé ah, la ay gaz la yooyu installé foofu comme ça bu nit ki duggee hmm. sàcc bu duggee ak fu mu mënti jaar dina koy détecté loo xamante ne dina tax yow yaa koy installé chez hmm. dina tax que da koy ba fi nga koy fekkaat hmm. pour mën ko jàpp yóbbu ko donc y a yoo xamante ni installé ko pour gën a aar nit ñi parce que cas de vol yi léegi dañuy daaj dañuy dugg sa kër dañ koy dajji ak loo mënti am comme comme type de truc sa kër dañ koy daaj yola la gaz bi ngay retaan sa classe gi dinaa xool naka lay créer gaz sama kër. li ma gën a seetlu Fama mooy léegi école yi école xale yi surtout jardin d'enfants yi. ci mhm. bëri dañuy ay caméras de surveillance. ci biir école oui yi moi j'ai vu des yoo xamante ni euh, booy dugg si nit ki borom kër gi ci biir néegam dina gis li xew këram yëpp. da ci smartphone am parce que xam nga même même xale yi suñu xamee ni dañ leen di surveiller. dañuy gën a day gën a tax ñoom ñu wàññi seen ay bêtises téléphone yi tamit ah, a ngay am application boo xamante ni tu la possibilité de voir tout ce qui se passe chez toi chez toi tu l'as parce que xam nga récré yi da doon wut ay agent ñuy ñuy xale yi mais ah. léegi da ngay toog sa bureau mm-hmm. jël cours cours récréation bi yëpp def ci caméra nga xam ne dangay mën a vérifier li xale yi def bu ñuy xëyee gaañ comme ni ñu ko gisee woon ci benn vidéo de surveillance bon bi ba muy dóor xale bi ba di ko gaañ xamul woon ni sax kër yëpp am na caméra ah. léegi ah. Ah. man bi laa bëgg ñu dellu si waat <laughs> nan lay nan la fay tëddee nan lañ koy nan lay demee. non le gars il a expliqué tout à l'heure mais déglu ko donc gars bi mu ngi expliqué tout à l'heure que dañ koy ñoom ñoo koy defal ci seen système yi. Hmm. de telle sorte que comme. ay tuyaux ay tuyaux lañ nekk yu nekk ci biir kër gi que tu ne peux pas détecter toi donc yooyu yëpp dañ koy boolewaal ci construction bi de telle sorte. cest dugg si duggal dugg si normalement mais boo dugg si ak fii gaz bi dina. tey technologie bi egg na foo xamante ne ah on peut tout détecter maintenant mhm. hmm? <laughs> ci mu mënti nekk yaa am na benn alarme déjà. man bu may dem damay dem ak rab ba euh, am na yenn kër yoo xamante ko fa installé suñu kër yi nga xamante ni dafa nit yooyu mënoo ko fa installé mais déjà y a des caméras de surveillance may ma ma daal problème problème mu bi eh, eh, eh. il faut mu de problème mu gaz bi de ah. tout à l'heure tu disais que ce smartphone bi am nga ci des vidéos tout qui se passe chez nga ko détecter non am nañu ko am laa wax mais mm. non mais en fait xam nga booy expliquer à la télé il faut mu xaw a leer tuuti c'est-à-dire que boo boo waxee affaire gaz bi mm. non dama bëgg a xam parce que probabilité probabilité que nit ki ñëw dugg sa kër d'une façon improvisée wala imprévue loolu mën na ne. c'est-à-dire que boo buggee def ay raakolu gaz ci sa kër. mais xëy na booy tukki. ngay ngay ngay déclencher yooyu ngay. déclencher de un euh, le truc ne se ne se ne se kenn du ko du du kiyee boppam. du jékki-jékki rek mu kiyal boppam yaa forcément demal boppam ba pare buuba tamit nit kenn ko topp kenn ko topp ba mu sës buuba tamit topp nga faama ba mu sës de faam sa wàññi nga topp ko rek ba mu sës de mais buuba yow ko topp ba mu sës non non le truc ne ne va pas ce ce ce truc automatiquement tu as l'application sur ton téléphone quand il a lu anormal sa mën nga ko koy defee application de telle sorte que la personne buuba dafa jaawale émission yi nit moom kenn du ko topp kenn du ko topp ba mu sës merci Faba Tour non il a expliqué en plus waaw li nga wax am yow laa faral li nga wax mooy dëgg yow laa faral li nga wax li mu wax mooy dëgg du gaz est-ce que dañ koy balaa ci ci kii euh, Farasila dinaa la jëlaat indiwaat la fii nga expliquer ñu concrètement comment nan la ñuy déclencher li nga xamante ne moom mooy gaz bi. waaw oh, ah, vraiment et puis et mu wane mu wane waale ko. waa dina nga gis dugg na sa kër. xëy na xëy na nga koy bës mais tu as ça sa kër am nga ko si sa smartphone. Ah? di nga ko mën a euh, déclencher automatiquement. Euh, je te parle pas de gaz B je te parle de non yow sax jaruma la expliquer wéeroo ko am problème. léegi expliquer on a compris. on a compris on a non non garaawal bàyyi ko mu nelaw bàyyi ko mu nelaw. moom nelaw dañ leen sonal dañ leen sonal. dama parce que man comprendre naa. waaw mais ce qu'ils ne veulent pas. mais yow yow amul problème boobu pourtant li wax dafa am solo. téléspectateurs yi ñoo war a comprendre. mais je t'ai dit que le truc tu l'as. le truc quoi tu l'as bàyyi leen bàyyi leen jàmbur yéen tamit. waaw c'est-à-dire que man dañuy wax naan rek. <laughs> bi ma yërëm naa leen trop yéen ñoo jàkkaarloo bu ñu ko yóbbu affaire nii nga mel nekk non non mais sérieusement man su ma nekkee sama kër di seetaan. Uh-huh. nga ne ma c'est-à-dire que affaire gaz bi il faut mu leer voilà là on est en train de montrer ça tonton Mag lii mooy gaz bi. waaw. <laughs> yow tox la gaz la yow xamoo gaz ndekete. yow yaa koy déclenché fi nga toog. gaz bi dañ koy déclenché au fait. quand quelqu'un en chez toi il y a une méthode pour déclencher ça. mu aveuglé ko da lay toog xaar man en fait je comprendre naa souci yu buubu man mooy sama souci te certainement mooy souci yu téléspectateurs yi waaw non non non dëgg la. waru la de. wala kanamu nit bi mais booba képp ku dugg ci kër gi dina la dina la salle am salle de bain am toilette am chambre am yëpp cest boo ko tegee salle bi waa jaar ci fenêtre jaar ci kii bi ci ci néeg bi changer kii bi cest à que le problème mooy loolu est-ce bi ah, boo ko defee ci saal bi nit bi bu bu xamee ni yaa ko def ci salle bu tëbee jaar ci douche bi gaz bi day daw <laughs> oh te expliqué na ma de yow kañ ngay noppi doo noppi noppi comme expert bi expliqué na la yow expliqué ñu. léegi nañ ko tagalaat vidéo bi mu dégluwaat ko parce que man dama sonn. non mënuñu ko dégluwaat. non da koy teg ngeen may vidéo bi ñu tegaat ko ah. ah waaw d' accord léegi nan la tudd <laughs> man damay bàyyi yeewu leen. parce que man damay arrêté yeewu leen Pape Cheikh non non non mais parce que eh, yéen eh, yéen yi. mais boobu li mu wax dëgg la tamit. gaz bi mais après man naka la naka la gaz bi. machine bi machine bi nan lay def ba détecté kanamu nit bi. parce que bu dee voilà voilà eh, loolu loolu moo tax moo man dama man dama sàcc par exemple su may dugg ci kër damay ëppal non non mais Pape imagine nga nekk sa kër nga am benn urgence sa kër ah, ah am non <laughs> nga pàcc nga bàyyi sa portable sa bureau ah. nga ñëw ba ci kër gi nga war a dugg si biir kër gi kër gaa ngi làkk wala dara léegi da ngay yónnee ñu jëli sa portable balaa ba gaz bi dina daaneel yow sa bopp te te ma ci tubaab yi bu ñu defee bu ñu defee pour une dernière fois man du ma ci expert. pour une dernière expliquer ci tënk non comprendre dafa ñoom comprendre nañ ñu jël benn téléspectateur bi téléphone bi Aïcha ñu jël xool ndax comprendre ngeen 88 628 22 22 s'il vous plaît sarax leen ma dama benn téléspectateur woo wax ma est-ce que comprendre na problème bu gazu fra man wax naa vidéo alarme yi wax naa ci gaz yi wax naa caméra de surveillance voilà merci tonton Bac pour numéro téléphone yi juste benn téléspectateur ngir yàlla nañu nañu kenn woo ci gaz bi ñu passe pas encore eh, dañu wax ci gaz ba pare balaa caméra yi benn téléspectateur na dugg ku ma bañay dugg nag. <laughs> damay ragal yaayam dugg damay ragal yaayam wala papaam dugg. Pape Cheikh la. Matar Seck Kumba Gawlo. waaw tam dugg. moom de bu duggee une minute laa leen may ngeen def nii ndax moom rek ci wax. voilà merci. vous avez yow yaa defar lii. tonton mag. <coughs> seetaan je veux juste benn téléspectateur très rapidement. ñun suñu gaz bu Sénégal bi déedéet ñun suñu gaz bu Sénégal bi day gëlëm ci saa si. benn benn téléspectateur du dugg pour wax ñu est-ce que comprendre nga est-ce que comprendre ngeen li Faba Thioune wax. vous avez vu 88 628 22 22 allo allo. waaw waa ji daw na ba téléphone. allo kooku kan la. ma chérie na nga def. donc ma comprendre ma def ba eh, léegi. comprendre nee la wax. dugal leen beneen téléspectateur léegi ñu sondage ko bul influencer kenn <laughs> beneen mayaat leen ma beneen. comprendre ngeen li Faba expliqué allo. allo bi na nga ngay wootee. ah Grand Yoff. est-ce que comprendre ngeen li Faba ñu xool ndax oh, dernier dernier téléspectateur pour ñu xool ndax comprendre li Faba Thioune wax allo allo allo kooku allo kookan la. oh, oh kooku dem na. kooku doon noppi. yu kii est-ce la allo. mais moom sax xamul fan la jógee <laughs> kookal la. Aji. fan nga dëkk. Aji est-ce que comprendre nga li Faba Thioune wax. <laughs> non Faba na. Faba nangul nangul nangul ni Aji xanaa bu ñu matee dix téléspectateurs. non Faba Thioune di jàpp ci yàlla may ñu jàmm te bàyyi émission bi. <laughs>

Alassane Ndiaye. Alassane fan nga dëkk. ma préparé ñibbi ma Kaolack d' accord Bongore wala Kasnak. non ah yaa ngi Bongore d' accord yow sama mbokk nga est ce que Alassane comprendre nga li Fama Thioune wax. si comprendre <laughs> laa waaw a ngeen koy def. yow mais wax dëgg yàlla li léegi doo ko laaj fan lay fan la ay ay da ngeen mu gën a leer loolu moom d'accord naa ci ni ngeen def newul ne ñëpp a mën a xam euh, li muy wax ci lu leer. li ngeen def nag noonu loolu la moom mu gën a leeral. dëgg yàlla leer na. yow yoo xam ne da ngay jàppale. Assane da ngay jàppale da ngay jàppale Fama rek. guddal fan dëgg yàlla xam Fama Fama ma ne léegi bu fekkee moom comprendre na nañu wax fan la ñuy chargé bu diggu naan wala. wala super. <laughs> nee ko Alassane du gaz boobu moo tax moom comprendre ndax gaz boutique la xam. xam nga loolu peut être moom man na am du doon domaine am ni mu ko expliqué maanaam newul ne <laughs> nit boo duggee directement. xam nga lan moo métti waaw Alassane la Alassane. waaw xam nga doguma la xam nga lu ma gën a. waaw yow pax bi bi. nangu yow it il faut. du nangu pax bi mu dugg. ma ne paxu bi. di nga ko fa fekk yow mi yaa nar a dugal sa bopp day commencé mais mais mais Alsaan. mais a mën a jëlee day am place boo xam ne ci caméra ah. léegi dernière question pour pour ma xam ndax réellement comprendre nga wala da ngay jàppale Fama rek affaire bi ma ci jàppale. ah waaw waaw waaw xaw ma mais mais mais comprendre nga li mu wax ah yow. ñeneen ñi comprendre man yéen itam yéen ñi ngeen def yaag Pape Cheikh ànd naa ci ndax dama ne man ni ma mën a gaawee comprendre peut être mën na am ñeneen yoo xam ne gaaw ñee comprendre très bien ñu jël leen a expliquer mu leer mais seen devoir la li ngeen ko wax itam dëgg la ah, mais Alassane itam dëgg dëgg leer na Alassane ci man waaw léegi xam nga caméra ça dépend les tailles moom dañuy différer. waaw ça suppose que caméra de surveillance mooy pour ñu bañ ko bañ ko gis la day ndaw. bu dee caméra de surveillance foo toll gis ko xam nga ne ko kii mais caméra bu de surveillance nu mu ndawee noonu nga bëgg dugal gaz encore ci biir. non day am beneen place réserve pour man noonu la place boo xam ne. pour ci ginnaaw wala ci kanam. non mais bu da a ko lekk xale yi moo dañ ko bëgg a sonal rek Alsaan ñu lay gërëm. <laughs> mais nag li mu wax nit ku baax nga nit ku baax nga nit ku baax nga ñu ngi lay gërëm <laughs> ñu ngi lay gërëm bu baax. tu hein? dis que duñu wax sans l'avis des, donc ñun on n'est spécialiste quoi tu spécialiste yi ñooy wax ñu xaw cee appuyer noonu rek. voilà waaye comme que sama noonu laa toogal tey. rien ne m'étonne aujourd'hui jërëjëf merci beaucoup ñu ngi leen pour moom gaz moom bés bu ci waxaatee téléspectateur bi du yam ci woote dañuy ñëw ci télé bi. bàyyil gaz bi Pape bàyyil gaz bi. ayca léegi gaz moom bàyyi koog lopp gaz. allo allo waaw kookan la. asalaamaaleykum. maaleykum salaam jàll nañ ci jeu des cinq mots. waaw. <laughs> maa ngi def. ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah dama doon participer. waaw noo tudd. Euh, Fatima. Fatima fan nga dëkk. maa ngi dëkk Dakar. Fatima Fatima comprendre nga li Faba Thioune wax. comprendre naa bu baax. et eh, comprendre dara. comprendre naa bu ko Ndour mi dafa ñàkk ngor. ah <laughs> parce da ngaa sew xamoon yow da ngay seetaan xam nga tamit yeewu suba rek yore la dafa am gaz boo xam ne daal daanaka boo dugg see kii la loolu dafa yomb trop léegi waaw mais yomb yombul yomb na yombul mais parce que fi mu ne bu ko expliquer de A à Z ba mu jeex su ko defee gars yi dañuy xam secret bi waaw léegi doo ko laaj waaw doo ko laaj fan la ñuy chargé gaz bi day xam fi muy jaar ñuy chargé gaz bi bu jeexee loolu bu la intéressé boo demee fi ñu koy jaayee boo ko laajtee dinañ la mais fan lañ koy jaayee non non mais mais mais mais moom moo war a expliquer moom moo toog ci télé bi di ko wax moom moo war a expliquer lu ñu ko am na expert bu tudd Farasila boo ko léegi yéen bu leen intéressé da di dem ci ki nga xam ne moo koy jaay mais mais balaa ñuy dem clairement mais bu toogee si télé bi découvrir affaire bi ba mu jeex xarit la. wuy ma wuy ma. xamuma ko xamuma dama koo bëgg te yàlla ndax. kon yow kon da nga koy da nga koy faral. faraluma ko damaa wax dëgg bi. ah déedéet faraluma ko. Ah, waaw wuy ma faraluma bi rek. waa léegi Faabu lu mu la taxee jóg la expliquer clairement. waa léegi gaz bi waa léegi léegi dama bëgg a xam. waa déglu gaz bi fan dama bëgg a xam dama bëgg a xam gaz bi fan lay nekk ci kaw wala ci suuf. ci suuf rek la bëgg a xam. nee ko comme diffuseur ban angle sama veut dire que taas bi. jërëjëf yal na yàlla fay sa xol bu rafet jërëjëf léegi xanaa mën nañoo jàll ci leneen. merci dañu jàll ci leneen suba dañ koy àggali ah suba 7 heures bëgg naa ngeen wax ba gazu fa ba tuun bi. ndax comme daal lundi prochain dinaa ñëw ñoom nit ñi am une semaine pour fu gaz bi léegi nag bu ñëwee nañu wax fa la ñuy jaayee gaz bi. ak lan lañ koy paas. boo leen ma gisee rek ñoom la.